Salam alaikum wa rahmatullah. Ravi de vous retrouver sur votre chaîne leader TMP. Euh, Tay nak euh, dañ doxantuwaat tam ba fi ci Azur euh, fasciné de la sunu gan bu màgg bi di Serigne Mahamadou Mbaye fas yéene ak moom ci asrar. asraar asalaamaaleykum wa rahmatullah Serigne bi. assalam wa rahmatullah ñu ngi leen di fay neyo, di leen dalal yéen wa TMP di nuyu askanu Sénégal di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yëpp. di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne wa salaam wa rahmatullah. jërëjëf sëriñ bi euh, tey nag euh, dañoo fas yéene ñëw waxtaan ak yow euh, ci benn téere boo xam ne téere boo xam ne dafa limbe jamono n'est-ce mu def buzz lool ci jamono bi soldaar yi di ko di ko di ko coow nest pa pas militaire di ko coow gendarme yi di ko coow commercant yi di ko coow waa ba ci mafioso yi sax di ko coow waa sëriñ bi loolu doy na waar de dañ bëgg nga masuñu tudde ci. waaleykum salaam jërëjëf Cheikh Mouhamed Euh, téere boobu nga wax mooy ndombo gi nga xam ne mooy ndombo gu wuute gi nga xam ne ndombo gi doon ndoneel la euh, waaye bañ ko doonoo sax dañ kaa gëstu sax xam ci loo xam ne sax si ñiñ ko jëlee ñoom si seen bopp dañoo dem ba wax ne ñoom sax yegguñu woon fii ci ndombo gi li ko sabab nag mooy jëflante giñ jëflanteeg nit ñi ci wàllu ndomb gi ci wàllu yaatuwaay am yeneen yoo xam ne sax ñun xamuñ ko woon ci ndomb wuute gi nit ñi nga xam ne jëflante nañ ak ñoom ñëw waxal ñi ko ci loola tax ñin ñi xam ci loo xam ne sax si ñiñ ko jëlee xamuñ ko ci ala kulli xaalin boo xam ne euh, wuute lañ koy tuddee wuute nag soo ko waxee ku dégg olof dana xam lan mooy wuute ndax buñ ne woon jotaay bii nii ñi ngi koy def waaye am na ñoo xam ne wuute nañ ko mooy ne am na ñoo xam ne fekkeewuñ ko ndombo bi nag wuutee la tudd lan ngay wuuteeg da ngay wuuteeg lépp loo xam ne luy lor doomu aadama la di ko indil jafe-jafe di ko indil ay problème loola tax ñi tuddee ko wuutee waaye man ndax da ngay wuuteeg loolu rek ba pere te du la indil njëriñ déedéet da ngay wuuteeg loolu ba pere mu xëccal la lépp loo xam ne luy jëriñ doomu aadama la loola tax ci arab sax ndomb bi luñ ko tuddee Euh, dañuy wax ne dafa nangu ñaari anam bu arab yi waxee dafxan wa jalban mooy lépp loo xam ne daf lay xëccal lu lay jëriñ ak lépp loo xam ne daf lay dàqal lu lay lor waaye nag ci olof liñ ci bind mooy ne ndomba gi ndomba ak wuute la lan ngay wuutee mooy da ngay wuuteeg safaan bi nga xam ne bu duggee ci doomu aadama daf koy lor comme lu demee ni ay accident wala lu demee ni ñi nga xam ne ay mool lañ di dugg ci gaal yi di nekk ci géej gi ndax tey si tey ndomb bi boo ko takkee boo duggoon ci gaal bu gaal bi xaroon sax di lab yow ndox mi du dépasser sa ndigg li fi nga takk ndomb gi ndox bi du ko dépasser mukk te li tax ñu ne wuute la loolu doo ko gaaw a gis ndax nit du ko takk sax di lab ndax problème damay faral di wax ne képp koo xam ne takk nga ndomb bi li mën a am mooy mën nga dugg ci oto ba wàcc ñi wax ne oto bi daf na sog waaye tànk yaa ngi ci biir oto bi oto bi du def sog loolu tax ñu tuddee ko wuutee des fois nga gis ndomb yu baax yoo xam ne wàllu kaaraange ci lay dox nga xam ne boo ko takkee bu oto bi defee accident dangay ngay mucc wala boo duggoon ci avion bu amee problème masalan yàlla ndax yàlla tere yàlla bu gaaw a am waaye comme lu demee ni avion bu daanu wala leneen da nga cee mucc waaye ndomb bi nag moom tànk yaa ngi ci biir loolu du xew loolu tax ñu utee tuddee ko wuutee damay faral di wax ne képp ku ko am ba takk ko sax boo toogee ci grand place lu demee ni xeex war fa am wala xuloo da fay nekk ba jógee fa dem ñibbi sa kër la lendemain ba lañ lay wax nag di la ko nettali naan la démb de nangam ak nangam bi nga jógee fii nangam moo fi xewoon waaye yow danga koy wuute loolu moom ci wàllu kaaraange boo ko déggee da ngay wax ne ci kaaraange rek lay dox ndax li gën a jafe ci lasraar mooy nga am ndomb boo xam ne kaaraange gi dafa jéggi dayo en même temps mu àndaaleeg luy ubbi doomu aadama ni ni kaaraange gi toll nu ko raw la ubbite gi toll liggéey mënoo am euh, wala dajale tëla wala yu demee noonu wala sa wërsëg néew daf koy yokk te dafa am leneen lu ci nekk loo xam ne lu doy waar la léeg-léeg nga gis nit boo xam ne dafay feebar mais du xam feebar bi mu feebar lan la bu demee hôpital buñ gëstoo xool duñ gis dara mu koy jaaxal lool ndomb bi bu ko nit ki takkee feebar bi nekk ci moom daf koy dindi day mel ni comme benn weñ bu daloon ci soow nga jël sa baaraam seppi ko sànni parce que du bokk nit ki du ko takk ndomb gi di dund ak yow nga nekk ak moom takk ko ba pare feebar bi di dund ak yow daf koy dindi sànni ko ndax doomu aadama damay faral di wax ne ñëpp am wërsëg euh, yàlla bindut ci kaw suuf koo xam ne amul wërsëg waaye lan mooy tax mu dem ba wërsëgam taxaw loolu ay jafe-jafe lay doon ci àdduna tax yàlla di wax ci alquran ne euh, bind naa doomu aadama waaye dama kaa bind si coono dama bind doomu aadama maanaa boole ka ak ay coono ci àdduna ak ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu loolu la lay dindil képp koo xam ne yàlla dimbale na la nga am ko mën naa wax ne sa jafe-jafe jeex na ci wàllu am-am ak ci wàllu yenn yi nga xam ne doomu aadama yi ñu ngi koy defante seen biir yow yàlla musal na la ci. macha allah ah, sëriñ Euh, téere bi waaw am na njëriñ lool lool lool lool lool waaw ndax lu muy finq yëpp nit ñi gis nañ ko waaye tey ku ci bëgg am tey nooy def. Euh, damay faral di wax ne nag am ko yomb na yombut su ma koy wax du ci kaadaru xaalis ndax xaalis moom ñun ñëpp bëgg nañ ko ndax yàlla dafay wax ci alquran ne wa tuhibbuuna al maala hubban jaman dama bind alal rek def ñépp bëgg ko kon su ma ne am ko yomb na yombul duut ci kaadaru xaalis bi ngay dépenser si loolu moo tax ma ne dafa jafe li tax ma ne jafe na man maa koy liggéeyal sama bopp te man benn nit la te duut lu ñuy photocopier lu ñuy toog di ko bind la te bind ko ci boppam dafa am sart bind ko dafa am sarta sart yuy jafe moo tax li tax ndomb bi am ko jafe mooy man maa ci mëntu di liggéey lu bari moo tax duma koy faral di ko am di teg nit mooy soxla ñu waxtaan buñ jubowee ma liggéeyal ko ko sarte yim laaj nekkul heure bu ne laa koy mën a liggéey moo tax am ko nag am sens rek la mun naa nekk ak nit ay at du ko am ma koy defal lu ne euh, mu ngi dépendre rek ci sens bi damay wax ne daal am ko am sens la ndax ndomba wuute soo koy bind weñ du la laal weñ yi di naaw du la dal du la dal boo bindoon ba des tuuti weñ dal la ndomb bi yàqu na li nga bindaale woon yépp danga nga koy teg à zéro dalewaat beneen li ma koy faral di liggéey li ci ëpp guddi lay doon boo koy liggéey am na ay charte yu bari yum laaj maanaam soo koy bind doo wax bu la weñ laalee yàqu na te da ngay ànd ak njàpp ndax alxuraan la bu nit déggee kaaraange bi ci nekk ak ubbeeku bi sax yenn kaaraange yi bu ko nit déggee sax dafay wax ne est-ce que lii alxuraan kese la wala nangam waaye nag alxuraan ci la lépp nekk mu ngi depender ci ndax jullit ñi àgg nañ ci mën a jëfandikoo alxuraan pour mu jëriñ leen wala déet ndax yàlla moo wax ci alxuraan wa nunazzilu min alquraani maa huwa sifaun wa rahmatun lil alamina kon alxuraan ci la lépp nekk amul dara lu nekk ci ndomb gi lu génn alxuraan lépp luñ koy defaree alxuraan la kanaa ñu demee ba ca ëw ba ba àgg ci ëw ko la ñuy wax ne liñ koy ëwee deru benn mala lay doon boo xam ne benn melo lay doon moo tax liggéey ko jafe na jafewul même nit ki ko am ndomb bi dafay yokk sa gëm yàlla hmm. daf koy yokk gis nga képp ku ko takk boo doon def yu bon da nga koy bàyyi heure bu nekk daf lay dafay mel ni daf lay gën a xiir si njub sart la sax ci képp koo xam ne am na ko am na jëf joo xam ne bu ko jëfee yàqu na benn mbir rek mooy yàq ndomb bi ndomb wutee moom benn jëf rek moo koy yàq ci ku ko xas ba am ki ko xas ba am bu defee zina rek ndomb bi yàqu na. lan mooy zina mooy njaalo njaalo képp ku ko am boo ko defee ndomb bi yàqu na ndax zina moom am na ku ma ko defaral mu may woo di ma laaj di ma laaj yi nga xam ne nit daf koy ittewoo avant njaalo ndax loolu dana ko yàq wala du ko yàq lu demee nii ndax jamono dafa yàqu yenn foy yi nga xam ne nit mu ngi koy seq ak jigéen. di ko def ndax dana yàq ndomb bi wala du ko yàq ma ne ko ndomb bi daal njaalo moo koy yàq njaalo nag mooy sëy ak jigéen boo xam ne takkoo ko am na nag lu ci téere yi wax borom xam-xam yi firee nañ njaalo lu bëree bëri ñi ne bët dana njaalo loxo dana njaalo làmmeñ dana njaalo tànk dana njaalo loolu nag ñi ngi ko teg ci li muy def avant njaalo di am waaye bi bi yonent bi sallallahu alayhi sallam ni mu waxee ne képp koo xam ne jàpp nañ ko mu koy def fekkee ne góor gu sange woon la dañ ko war a rey fekkee jigéen bu amoon jëkkër li itam dañ ko war a rey njaalo boobu ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxee loolu moo tax ñi ñiy wax njaalo ndax loolu yonent bi sallallahu alayhi mu ngi wax ne mooy nga gis ndaw si tëdd nga gis sàkkara góor bi di duggee ci pëyu ndaw si comme ni tusngel di duggee ci kii bi dafa am lu ñuy tusngeloo nga xam ne dangay jël dugal ci biir di tusngelu affaire tusngel boobu nu muy duggee ci biir pax boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na noonu lañ war a gisee sàkkara bi di dugg ci biir pëyu ndaw si te loolu nee na na ko ñeenti nit gis yoo xam ne bokkuñ fu fuñ jógee te kenn du wax moroomam na ko xoolal moo tax lislaam yombalal na lu bëree bëri njaalo googu lañ wax yeneen yee nag duñ ko génn ci njaalo ndax boroom xam-xam yi nee nañ bët dana njaalo ndax xool jigéen ba bànneexu ci moom njaalo la bu fekkee jigéen joo la jox loxo jigéen bànneexu ci njaalo la bu fekkee takkoo ko loola tax wa kullu ma yu addi ilal xaraami fa huwa xaraamun lépp loo xam ne boo ko defee mu yóbbu la ci lu xaraam loolu dafay mujj xaraam hmm. macha allah ah, sëñ bi leer bëgg na lool ci leeral bi tey lu ma ci jàngee rek mooy nit day maandu waaw ndax yàlla moom moo njëkk a suturaal doomu aadama waa ndax ponk yooyu mu mu wane ci ci ci nuy seetle nit njaalo na waaw loolu jafe na lool nit di ko fekki waaw kon yàlla ku suturaal jàmm la kon loolu day maa ngi ci waaw woo sama mbokk yëpp waa ñu gën a maandu ci mbir yi bañ di tuumaal nit ñi. macha allah sëriñ bi tegtali leer na bu baax a baax waa lu may conseil tamit nit ñi mooy ñi daw gaaw ñoom ñi di faral dem ay mission ndax boo xoolee mission yi ñu ciy faatu ci ay militaire day bari lool lool lool te wuute boobu xam naa bu ñu ko tekkee dañ leen ci muccal bu baax a baax mm. waaw muy sama mbokk yi jaaykat yi euh, journalistes yi ñoom ñëpp dinañ ko soxla macha allah kon maa ngi ciy invité baax a baax nit ñi. Mm-hmm. waa sëñ bi fu la ku lay jotee nan la la mën a jotee. ku ñu bëgg jot mën nga ñu woo ci 77 157. 54 54 wala nga woo ñi ci 77 929 13 59 loolu mooy suñ numéro yi nga xam ne ku ñu ci woo danañu jot incha allah. macha allah kon sëñ bi looy tàggatoo. Euh, di wax rek ne di jéggalu ñi nga xam ne léeg-léeg ñi woo ñi laaj ñi ko te fekk duñ ko am ñu ngi ciy jéggalu li gën a tax ñi leeral ko mooy ne nekkul ne ndoom boobu wutee dañ koy bind di teg di ko jox ay nit wala di ko photocopier di teg. charte bi mooy loxo lañ koy bindee te li ci nekk noonu sax doy na mi exemple ne nit mënut kaa photocopier di ko jox te ñi ñu koy laaj léeg-léeg fekk duñ ko am liñ bëgg ci suñ àdduna mooy di dimbale jaamu yàlla yi bu fekkee ne dañ koy def pour dimbale wàlla sin bopp ci wàllu koppar liñ ciy am itam li ñuy muslu yàlla mooy ci àdduna nit wax ñi loo xam ne mënuñ ko ñu jël xaalisam lekk ko ëllëg mu ñuy indil ñaari problème problème àdduna bi mooy dootuñ nekk en les fu ñu bëgg dem dañuy sikk sàkka ndax daañ dajeeg moom wala déet loolu dund bu métti la doo yoroon ay milliards di dund loolu itam dund bu métti la deuxième bi boo dee itam sa borom danga nga layoog moom ndax yàlla dafa wax ci alxuraan ne bu leen di lekk riba euh, daf ne bu leen di lekk fekkee xamoo ko woon soo ko xamee nanga ko bàyyi ndax aaya bi ni mu tëddee daf ne euh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla daf ne wazaru ma baqiya mina riba lu jiitu loolu def ne la tàkkuloo riba la tàkkuloo riba mooy bul lekk riba soo ko xamutoon soo ko xamee aaya bi dafa continuer ba mu yàgg mu ne wazaru ma baqiya min riba maanaam xamoo ko woon xam nga ko bàyyi bàyyi ko te riba nag nit mu ngi ko mën a amee ci ni ngay dundee ak li ngay amee alal ak fi nga koy dugal loolu la ñuy muslu yàlla di tàggatoo waa Sénégal di leen wax ne la loolu moom ñu ngi siy jéggalu bu baax Euh, di nuyu waa TMP di leen ñaanal yàlla comme nu ma ko faral di waxee ci seen itte ju rëy euh, yàlla na yàlla yëkkatil leen boppam yàlla sàmm ko yëkkati ko ba mu yegg foo xam ne képp ku nekk ci site bi di si liggéeyee dafay weesu sa njorto yéen ñi nga xam ne yéen a déplacé ñëw seet si ñi yàlla yokk seen wërsëg yokk seen fan may leen wér musal leen ci lépp loo xam ne luy yàqal doomu aadama la ndax yàlla rek moo yore kaaraange képp ku yàlla aar mucc nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla waxoon na ko ne ko wallaahu yaxsimuka minan naasi yàlla mi ko doon aar ba léegi tey la fi gën a nekk yàlla na leen yàlla defal jàmm wa ma zalika ala llahi bil aziz wasalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah waa di bëgg lool seen fiti ak ñun di leen jox euh, dig daje ci beneen numéro incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah